ñu dajeeti ci seen émission bi nga xamante ni ngoon gu jot moo ñuy dajale les ambianceurs ci télé bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale tey nag tàng na tàng goo xamante ni yàlla xam na ni ah damaa xamul nu may def téléspectateurs yi fii ko rendez-vous la boo xam ne ñëpp dañu koy xaar waaye sama bopp bi métti na xeetu métti goo xam ne ah lii tamit changement climat bi tamit barki yéen bi sama bopp bi day métti loolu nga gis. maanaam man boobu muy damaa jàpp yow. ah jàpp na la ko sama bi dafa war di <laughs> a wóor. waaw daal. da ngay soft waaw la légère jël dara au sérieux quoi. wane nga ko tu xam nga. wane nga ko te ñun nag fii dafa mel dafa commencé sedd depuis kañ démb. ak tey moom sunu fi dafa sedd ngelaw gi di dugg tranquille clim bi di ñu dugg. ngay ngay waaw waaye am na ko fi nekkoon <laughs> non kooku sonaloon nañu. Mara Mara moo doon yokk tàngoor bi. su ñëwee sol sol cuir bëgg ñoo rey. barki bi léeg-léeg mu def ay timbar laay. nekk maa ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax donc bëggee wax téléspectateurs yi encore une fois euh, bëggee ji nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel un peu partout dans le pays un peu partout dans le monde cette TV mooy télé bi ñu nuru ba nopp dañu dajale 16h bu jotee daf ñuy dajale ak yéen ci benn moment de détente moment de relax euh, gannaaw bu gars añee ba noppi aas yi donc mm-hmm. moment heure de sieste bi xam nga ku nekk tëdd fa la neex. Mm. am ñoo xam ne ñu ngi seen biir kër. am ñoo xam ne ñu ngi ñu ngi seen i bureau am ñoo xam ne ñu ngi ci marché yi am ñoo xam ne heure bi dañuy dem di ñu leen invité ay naan ataaya. dem plage dem plage jot na. dem piscine dem waaw mais plage yi nag baax na tamit ñu sensibiliser waale xale yi. Mm-hmm. parce commencé na aussi di di am ay ay dégâts yoo. xamante ni am des cas de noyade yoo d'ailleurs Papa am na ci frère boo xamante ni doom ji fa la jaar voilà donc mi ngi mi ngi bëgg bari donc ñu wax way jur yi ñu gën a bàyyi xel loolu. Mhm. Ah, di bàyyi xel seen doom yi. bu ñu génnee lu yàgg ñu wëri leen xam fu ñu ne. Mhm. xale yi aussi comme mënuñu leen teree dem géej parce que ne jaar nga ci. Mhm. ñun ñi dañ daan làqatu boo jigee géej fu ne ngay jaar di sëlmoo di kii pour meex mi deñ parfois nga dam bant bale pour <laughs> ñu bañ la dóor waaw pour ñu bañ la dóor yooyu yëpp ñun ñëpp jaar nañ <laughs> donc xale kenn mënu ko tere yooyu mais nañu bàyyi xel bu ñu demee ci ndox mi ñu bañ a sori mm. yooyu noonu parce que bu ko defee loolu dina leen euh, musal ci yu bari lu ko mooy dañuy sonal seen bopp sonal seen ay wayjur mm. donc ajarut aasi ma bàyyi la nuyu ak téléspectateurs yi waaw euh, comme niñ koy euh, defee rek Mara tous les jours di nuyu bu baax baax Euh, di ko remercier aussi muy sunu invité prince ak ñi mu àndal waaye di nuyu bu baax a baax ñi nga xamante ñoo nekk ci hôpitaux yi di leen ñaanal yàlla rek yàlla fëgg seen bopp ba ngeen delluwaat seen biiri njaboot euh, ñi nga xamante ne yi ak a bëri nag maara nekk ci ay tolof tolof yu tar waaye nekk ay góor moo tax ñu toog seen biiri kër euh, ñoom la caabi féete ginnaaw mm-hmm. yàlla na yàlla génne leen fi ngeen nekk ba ngeen mm-hmm. delluwaat seen biiru njaboot ci anam bu mu gën a rafetee mm-hmm. ñi nga xamante ni ñoo dëddu it yàlla na yàlla yeesal yërmande bu baax a baax si ñoom Mara tey dama bëgg nga may ma ma nettali. nga nettali. dama am envie nettali tey. non mais loolu sa jikko rek. waaw ah. Ah. ah ah déedéet. naar miir na gànnaar tamit. di nga tax sama invité bi tey sama invité a nu ma respecté te dama ñëw tey def place pour sama kanam. yow tubaab ah. bu dem Paris tukki la wala ñibbi la tubaab bu demee Paris tukki la wala ñibbi la. mën na ñibbi des fois day ñibbi des fois. loolu amul des fois loolu ñibbi la presque. boo nee la dugal de bu mu la dugal balaa ñuy xuloo war ak yow ci biir plateau bi bu mu la dugal. dañuy xuloo bëgg na te lu bëri na de. ma waaye la wacc kanam kon. mariage yeeg. ah. a ngi fi. ah waxi sori. waaw. nañ la dëkk la bu ñu war a càngat de parce que man kaay xam nga man bëgg naa ngay traité kaay mais kaay yi mu tegaloo nii góoman dina xaj sa bopp de. déedéet man instant damaa indi ñaar. Eh. bu soo am indiwaat ñaar. ok dinaa soo am indiwaat ñaar <laughs> di koy nettali kan la. mais yow téléspectateurs yi loolu dafa wax ci li tax ñu bëgg la <laughs> parce que am na ñoo xam ne amuñu temps euh, selfie ci seen ay téléphone wala nekk ci TikTok bi. Mhm. kaay day rëcc. donc euro ambianceur bi yoo la pour nga jox leen ko mais avant cela dañu dalal suñu invité d' abord nuyoo ak moom mu nuyoo ak téléspectateurs yi après bu ko defee bàyyi rek def serul nga nettali yaa te naa ko instant naanu ma ataay te loolu rek moo mën a téye sama bopp bi dose bi dafa dëgër fu mu toll waaw très ñu dalal suñu invité gannaaw bu ñu campé décor ba noppi il se nomme Prince Dioum euh, nekk xale boo xamante ni gars yaa ngi koy bëgg ràññee. Mm. sur la scène musicale. Euh, actuellement mën nañu wax ni il fait partie des jeunes artistes yi nga xamante ni il la toile. Mm-hmm. macha allah gars yi di ko bàyyi xel ci voix bu mélodieuse bi. Mm-hmm. voix bu pétillante bi waaye itam paroles yi nekk ci texte yi parce que fi ñu toll nii célibataire yu bari góorgóorlu lañ dajale. ñii daal di leen ñii ñu ngi wut di leb ñii ku ne. <laughs> yaa ngi noo def pour jënd guro may sa ki nga nopp takk ko. Mm-hmm. ci bànqaas sëy daal mooy dëgg daal. waaw yeneen ni ay caaxaan. wallaay na gaa yi takk jabar donc il se nomme Prince Dioum tout récemment mu génn benn tu tuddee ko jëndal guro. Mhm. donc Prince la ñu dara tey c'est un plaisir nga fekk suñu ci plateau ambiancé fii nag nii la moom. ataaya jaa ngi ñëw ci kanam ak café yeeg. noonu lay demee relax non fii day neex sax. day neex fii tey day neex. ay Prince maa ngi lay nuyu waaw maa ngi lay maa ngi lay ziar. Ah, euh, Jantal Mara. Mhm. laa lay laa lay woowee. di rafetlu invitation bi. Mhm. di nuyu aussi ki nga xam te ne mooy Asi. Mhm. suma jigéen ju ñaawul ji euh, di nuyu téléspectateur yi nga xam te ne ñu ngi toog seen kanamu tere yi. Mhm. di ñu seetaan Ali maa ngi koy jaar moom mi ma àndal muy ndaanaan mag bi Papa Dieng Salla di nuyu ñëpp di leen wax que ni tey moom dinañ fi jéem a neexal rek. waaw mm. ah, dañ koy jéem a neexal ba mu neex. gëm naa ko de mais ñu may ci suuf tey moom. non fii tey de <laughs> daa war a neex. waaw fii tey a neex papa mi ngi may laaj léegi léegi ñaam euh, clip bi ma ne ko loolu dencal ma ko parce que xam naa ne xale yëpp moom la ñuy xaar. Mm. xam nga actuellement c'est le chouchou des jeunes filles. te dafa tey dafa dafa. booy rek doon am de. ma niroog ku nar a def lu soft ndax benn affaire rek la indi tey. yor micro bi jeex na. affaire de relax la koy xale jigéen ñi ñëpp ñu ngi toog di seetaan dëgg la yow xale jigéen yee la sonal bul dugal prince boobu prince bi ci ay jigéen bàyyil jàmbur mu liggéey. waaw waaye waaye nobul kenn moom. c'est jeex na. Eh, prince lu. bàyyi jàmbur <laughs> waaw <laughs> bi ñu indi turu prince bi. parce que ko booy yi ko tuddee yooyu yëpp dinañ ko mën na nekk mën na nekk yooyu yëpp mën na nekk <laughs> mais lu jiite lool dañ la bàyyi tu vas la de décor dalal téléspectateurs yi ak benn tube boo xamante ni du ñàkk nga bégal ci gars yi après bu ñu dellu seen i soog a yaatal waxtaan bi d'accord ayca Ali ma la nammee ëpp na xam naa yëg nga ko ni ma la nammee ëpp na xanaa xam nga loolu sax la namee na xanaa xam nga loolu sax guddi du ma nelaw lekk suur naan man di gëj naa ko def yeey xale bi namm naa la jantal maa Xasin nee looy xale bi na mun naa ko looloo waaw ndeysaan Yaasin Géy Géy Joora na la leen na mun naa bëgg yaayam fonk yaayam Yaasin Géy Joora na la leen sama jigéen la gédda paam na la na mën la fii ci plateau bi borom baatu wurus bi looy papa jeng saalo waxal ma xale bi na mën naa ko xam naa na mu nday soxna borom Espagne lay deysaano papa amoore amoore fii sa la bul ma di sorey ndax jëmm ji yow yaay amoore amoore fii sa bul ma di sorey ndax jëmm ji yow yaay boroom bi nga may bëgg aw ma dara nga may muñal ba yàlla andi xeewal tey jii lépp baax na boog ma wone laa ñu ràññee dooma gën a gore ñaari goro ma jur ma ñeete leen man li ma gënal mooy nga ñibbi si tey ma décoré la li seral sama xol yaa ko sama ul ay ne sama chargeru xol yaa ko su faible yow lay woo asi loo bëgg bëgg naa loo bëggul toog ma ci télé bu mag baa ngi noonu aas looy la sama xarit la neexoo loo def yow yaay borom kër gi loo ci namu def ko kër gi loo ci bëgg yow def ko ñoo bokk ndey baay bokkal nag maa bëgg lool dañ may tiitaroo dañ maa fonk loole mama ndaw jum samba ma déggeenoo mami taalo chéri booba lay Souleymane jum jum samba ma mën dem naa ci docteur nee na mënu ma la faj asi ba dem ci sëriñ bi nee na mënu ma ali kon ma ni kaay waay bànneex kaay waay bànneex soo ñëwul dinaa dee yaay suma médecin eh di suma macha allah ah wax naa ko sànq ci baat bi macha allah waaye mën nañu wax ni il fait partie ci ñu war a jël après relève mm. musique sénégalaise xam nga man su ma gisee journée mel nii su ma xel dafay dal damay xam ne après ñu ñu doon dégg parce ci biir woyam xam naa après dinañ dugg ci waxtaan bi du ñàkk dinaa xam exactement kan mooy idoolam ak yooyu parce que am na ku may dégg koo xam ne moom xam naa ne bi muy way kii xale la mbaa juddu manit de am naa am na ku ma dégg koo xam ne booy kooku ay waye man a mag bu fekkee ne xam nga ko moom ngay roy su dee ne xamoo ko yàlla bind na ñaari nuru waaye man it dégg naa ko muy muy muy muy am kenn ku muy imité. Hmm. waaw kooku tam xam naa dinaa ko laaj ci kanam. après di ko allah mais laataa loolu. man hmm. dama am benn question boo xamante ne muy euh, sànq Mara moo ngi ko doon wax. Hmm. muy turu prince bi. bu nga commencé woy ba tey dafa mel ni moom lañ lay woowee. waaw turu prince bi moom moom la moom la. moo fi mos a nekk. parce que man ñu ngi ma tuddee Serigne Mbacke Soxna Lo Jum. Mm. borom Taïf ak Baylaat Cheikh Magui Dam Xali Lo ah waaw maamam moo fi jàngal ñu fi raw seexal leen laay dëgg muy nit ku màgg macha allah di koo xamante ne dem naa ci moom ñaari yoon mu ñaa mu ñaanal ma laataa muy làkku dëgg na yàlla sama papa nee na ma tufli gi mu tufli sama gémmiñ sax moo tax ma nekk woykat loolu dama koy ree ba sonn donc xam nga ñu doon nekk ci koñ bi nag mm-hmm. Euh, doon dem di football yi ngoon gi bu jotee ñu dem terrain football tu ñibbisi bu ñibbisee mm, sama yeneen gars yi dañuy dem di continuer di sàmboori fii. di mm-hmm. dem di dàqee man damay dugg si biir sangu ba set. teel nekk booy jaay. gis nga mu ngi noonu. <laughs> <laughs> donc gars yi nag xam nga naan ma booy bi dafa prince xam nga suñu grand koñ. Mm-hmm. xam nga booy da nga bëgg yëf prince. yow daal vrai prince nga. Mm-hmm. donc prince bi foofu la jóge mm. ñu ne ko ñu ne nag. ah kon ngeli tuddewuñ la ko. Hmm? gelli tuddewuñ la ko. xale yi te prince nag boo ko waxee waxi gel day mel ne innocent nag naan la hu mel ni ku déglu ma prince déglu ma dama ne ba xam prince bi grand yi ñoo la ko ah. naan moom prince de booy de ah daan moom prince <laughs> léegi ma la nañ rek xoolal dama koy tegal ay ay ndëgg sërëx di ko piégé jàpp ko nañ def rek xale yi xale yi nag samay samay ñoom ñooy samay xarit daal ah. waaye waaye te dañ flow bu baax aussi. bu baax di challenge ci samay sound. Mhm. di ko partager. te ñoom yàlla dafa def si ñoom barke ñoom jigéen ñi. waaw mhm. mhm. ah, luñ bëgg day neex de. waaw non jigéen kenn jigéen kenn mënul def dara. te boolewu ko ci. déedéet. te yàlla moo def ci ñoom barke boobu noonu. lu ñu laal day dem. dëgg la donc ñuy samay jigéen nag. di samay xarit di ñoo xamante ne dama leen jàppee comme ñoo bokkal ndey ak baay. ndax da ngay gis sax ñoo xamante ne buñ jaaxlee balaa ñoo xalaat kenn prince la woo téléphone mhm. donc parce xam nañu prince dina leen conseiller dina leen mhm. teg ci yoon mhm. dina leen delloo bu fekkante ni dañoo réer voilà donc man ak ñoom moom relation boobu la am waaw wax dëgg na fi ñu gis ni yaa ngi euh, woy euh, mu neex ñëpp ñu bëri di la suivre nga am ay follower macha allah yu bëri yi nga xamante ni mu ngi uh, déjà sa clip yaa ngi sur YouTube. Mm-hmm. donc am na clip yu bëri nga xamante jot nga ko uh, génne gis naa si ñaar xaw ma ñett. Mm-hmm. voilà donc uh, ma doon laaj fan nga jëlee musique. doon ndono la wala da nga ko jàng wala. waaw musique bi bon du nono mm-hmm. mën naa ne influence la. mooy li may wax à chaque fois rek. dafa am daanaan bu mag bu ñu influencé. te du tàyyi di ko wax. parce il fait la fierté. nit la koo xamante ne dafa xuus. dëgg la ba muy metti lool muy Wally Ballago Seck. ndeysaan may sa biige may sa biige ma mm. voilà moom moo ñu. Eh, waaw moo ñu moo ñu influencé xam nga ay woyam lañ daan nekk di déglu di ko woyantu. waaw mm-hmm. bu ñu daan woy da ngay dégg xale jigéen naan da nga doro baat at waali da nga doro baat at waali. Mm-hmm. foofu foofu la fiy jógee. Mm-hmm. voilà ñu jég saa ñu ne pourquoi pas kon duñ ci dugg. waaw nii la nii la nii la nii la ñëwee naturellement. ok. loolu moo indi motivation Prince mais effectivement ci ci sa musique mhm. tey boo ñu doon wax ban genre musique la Prince di def wala ci ban musique moo gën a nekk favori foo xam ne fa la gën a sentir boppam waaw ba ñu ba ñu ba ñu tàmbalee ci loolu mhm. après dañu dem gëstuwaat xam nga jéem ut suñu yoonu bopp mhm. parce que moom laay wax à chaque fois rek roy roy dàkk amul fenn déedéet voilà te je pense que ni Wally jàmm lañ ko yéene nag salaam succès bu mag a mag a mag. Mhm. ndax man dama ko bëggal sama bopp te rek tax. Mhm. yenn saa yi ma naan kii man est ce que bokk maa moom day bàyyi sax. te yëguñu ko. ndax ni nga mhm. ma ko séenee sama xol dafay neex nekk artiste boo xam ne bëgg nga yegg a tout bu taxaw rek wooyul sax deful dara Wally bu solo ñëw taxaw def nii rek c'est un artiste. beneen affaire voilà donc euh, muy nit koo xam te nag euh, dañ ko bëgg suñu bopp mais quand ñun aussi dañoo dugg ci musique ngir passion. waaye ngir am réussite bu mag. Mhm. tey ñaan nañu yàlla fii waale teg tànkam ñu dem ba romb ko fa. donc jot nga ko jàng quoi def ci ay jéego. dem ci soit école des arts wala ci ay école musique yoo xamante ne demoon naa ci Adolphe. commencé woon fa mais après par la mhm. suite dama amoon ay ndog-ndog yoo xamante ne moo a mhm. dem nañ jéem a utaat suñu voix bopp. suñu style bopp xam nga dem liggéeyaat suñu ba euh, suñu voix pour mën a am. suñu propre voix boo xamante ne tey jii nii. Mm-hmm. boobu ba tey dañu daan woy samay premier single sax. boo ko daan déglu da nga naan ñu bëri dañu naan kama woy li waale. alors ma ne loolu nag. Mm-hmm. Euh, neex na. plaisir la mbégte la. Mm-hmm. mais quand baax na nga am sa style bopp. baax na nga am sa voice bopp. mais loolu nag travail bu métti la laaj parce que dañu daan dem géej yàgg fa lool. di travail suñu voix et puis bàyyi euh, bon du ma ne bàyyi déglu waale mais doon déglu yeneen musicien voilà. moo tax feeñ na ci biir woow yi di nga ci sentir ay touches yu bari. Mm-hmm. comme on dit l'art d'imiter n'est pas de dëgg mooy mën a créer wala mën a mën a indi say say style bopp. Mm-hmm. Mm-hmm. ma gis ni euh, def nga benn cover euh, ci euh, son Youssou Ndour salañ salañ voilà donc comme li ñuy wax Wally man je pense bien que <laughs> Youssou Ndour mooy sa idole. parce que gis naa la nga nga def ko et ça def na def na def na it. donc euh, je pense que bokk na ci sa euh, vue yu gën a bëri ma doon laajte ndax moom mooy sa idole wala da ko bëgg rek di def ko ci moom. Euh, kooku mooy suñu référence. Mm. waaw. c'est le monument. waaw c'est le nga monument renaissance bi ne ne fii <laughs> waalee gone gi ne nii loxo bi. Youssou Ndour moo leen taaw nii ku jigéen ki nag laa xamaguma kan la ku jigéen ki moom xamaguma kan la en tout cas xam naa ne Youssou Ndour a leen bokk nii <laughs> c'est mooy référence bi. waale ne ca kaw ne copp loxo bi léegi nag femme bi ne ci digg bi. laay xool entre Titi Kumba Gawlo Viviane ku ma ko ci jox. ay <laughs> damay tooñ balaa ay Siri Diop ak yooyu. <laughs> di xëy naan ay noo kii mais waale en tout cas comme ni nga ko waxee référence la mais Youssou Ndour moom. Mhm. c'est la star explanétaire. kooku kooku kooku waale sax Youssou Ndour mooy référence am. Mhm. donc ñun ñëpp dañu war a. Mhm. kooku képp kuy def musique wala kuy def aar da nga koy bëgg par la force bu dee bëgg nga art Youssou wax dëgg neex yàlla mm-hmm. amaana. Mm-hmm. Wally do doon na koo xamante ne peut-être ñu suñu génération moom lañ gënoon di gis ci écran bi. Mm-hmm. tu vois mais Youssou Ndour dañ koy bëgg par force. te dañ koy roy. li ñu mën a jël ci moom. bëri na trop. xam xam nga. donc Youssou Ndour référence la boo xamante ne. kooku monument la. dañ koy ñaanal gudd fan. wér gu yaram yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam a kanam a kanam. am na solo dañu lay bàyyi nga dugaat ci beneen tube yaa xam fooy foo ñuy yóbbuwaat. après bu la neexee ñambaas ci waali ñambaas ci yu bu ko defee tey dama bëgg yeneen touche feeñ parce que bi mu defee tube bi ak léegi def na ay plateau yu bari mais damay mm-hmm. gis que dafay ñëw playback donc moo bi ñu déggee man tey nag bëgg nga ñëw ñu découvrir la en live mm-hmm. parce que mi ngi ci ay recoin ah. booy bi léeg-léeg mu woote ay after work parfois mu def ay soirée te yooyu dinañ ci yaatal donc wax ji neex na ba nga fàtte sama nettali gi dégg non nettali bi dama ko fàtte <laughs> bu ah, ñu jógee <laughs> Aïcha Prince ñu dem ci beneen morceau ñu dellu si waat. Ah, ah, tey lay bàkk sama yaay booy ndey ju liggéey loo sama kër baay ndey ju sonnoon la loolu ma yaay booyoo ndeysaan waaw diina ba jum samba madigin babitalo Joy na man sama yaay yërëm na sama yaay ba garmin la woon yaayu kanaajum yaa Ibrahima yaayu dumel jumlo yaayu Cerno Ndaam yaa taxoon may ñafe lool nee noo yam bandaam dem nga bàyyi moom sama yaay waroon nga fekkee lii waroon nga toog ba fekkee sama njëriñ yow yaay booy war nga toog ba ma jox la caabi kër gi duppee la ko yow yaay maa ngi doon xaar yow yaay maa ngi doon xaar mujj dem bàyyi ma bàyyi ma ak samay mag ak samay rakk bàyyi ñoog sama tànta mara sama yaay ak a sonnoon na ñeenti at di jabati hôpital ñuy bëtt yaram wi subaak ngoon bu maara asi sama yaay sama yaay ku sono ma na lool yoon bi ma jël tar na waaye taxul ma xaddi benn yoona taxuli ma tàyyi benn yoon lépp ngir bégaloon sama yaay lépp bëggoon teral sama yaay mama bal ma su ma bal ma xiyaay su ma jumee yow naa way mën naa way guirlande le hommage yaay booy bëggoon naa la yóbbu Màkka ne siyaare Bayti Laay bëggoon naa la tabaxal château nekk faak suma bàyyi booy jarama jarama yow booy jarama kana jum sama baay ku gore la lool yore sama yaay ci anam bu rafet boolu kana jum samba ma dégeen bambi taal yore na ñoom sama baay booy ma ngi amalawal gaajigo gaajigo demba rakki gogo marsa gogomar sa wayn yeyi batal wangalo c' est émouvant. et prince nag voilà c' est émouvant et mi ngi yóbbu suñu xel xaaral xaaral xaaral prince nag déedéet nag prince nag non non non non non non non vraiment nag prince nag. waay waay mi ngi mi ngi yóbbu émission ci beneen ah. dimension xel yi mi ngi dem ci ñi nga xamante ni ñëpp voilà dañoo ñàkk seen yaay donc Asi damay damay damay enchaîner ak yow directement. bu ko defee yal na yàlla yeesal yërmande ci moom ak ñu ko fekk incha allah waaw waaw ah, te may la xolu muñ bi itam c'est xam nga nga di bàyyi xel ci moom bu ko defee dina la dimbali bu baax a baax a baax ci sa yoon ah si on enchaîne directement ak sa ay éléments li ñu war a nettali après bu ko defee ñu mën a kiiwaat li may indi comme élément boo waxtu lu nga lu nga nettali bu fekkuma ak yow maa ngi jégalu voilà <laughs> voilà comme élément tey qu'est-ce que lan mooy cas bi tey daal waaw <laughs> xam nga Sidi Diop dafa dafa tëggoon soirée. Hmm. yéen yëgal ngeen lool. yëgoon nañ ko samedi passé waaw. waaye soirée boobu bëri bruit. la moo ci xewoon. Mame Ndiaye Savon. waaw <laughs> ah. moom oh, day jóge ci lii daal ci leneen daal ci leneen. <laughs> yaa ngi dugg ci bari problème <laughs> man nag déedéet nag man sama doomu ndey la nag man. barki si Bamba dalay laay ba. sama doomu ndey la waxal ci moom loo xam ne. ndax sama cousin xaritam la. ah waaw ok. donc. Mm-hmm. moom daal dafa demoon ci soirée Sidi Diop. Mm-hmm. ñu génnee ko fa. Mm-hmm. cest dañ ko wax ne soo taxul bracelet. doo moom nee na. Mhm. comme dafa yàqamti woon dafa bëgg a dem terali euh, Sidi Diop. Mhm. nañ ko may mu dugg. ndax jënd na ay table mhm. table bu nekk moo ko jëndee cent cinquante mille. yóbbu ñetti otoom ak yeneen taxi te lépp moo ko fay. taxi bu nekk nee na fay na ko junni. kon moom daa demoon pour soirée. dafa demoon pour soirée ji. nee nag moom du génn katu guddi. waaw comme Sidi Diop da ko way. bëggoon na dem. terali ko ok waaw. nee na tey woon na million bu dëgër mhm. waaw 1 million 300 daal la téye woon 1 ah. million yi pour may Sidi Diop 300 mhm. mille nee na ko doon téye pour au ndax moom fu mu dee def au waaw léegi nag mbir mi moom xaw na cee wax mhm. Sidi Diop wax na ci euh, ñu déglu ko ñëwaat ci par rapport waaw ñoom ñoo ci kenn ñëw moytu lii wala ngay daal. aywa du ñu mën a tudd. ñoom ñoo yor kii bi ñëpp. bon ñii ñoo war a dal. lii day daal de. eh eh ay nit yu fay da nekkuñu fi. te dama leen respecté trop nañ jox cër client yi ndax fii ay nit yu fay fayda nekkuñu fi kenn xamee ma ci ay wax mais sécurité yi nañu réglé. dëgg la ñëwee léegi maam njaay Savon ñëw léegi ànd ak ay nitam mais bu dul dara gars yi di xaw ma la lañ doon def ci biti di ko indil ay problème ba mu gedd dem ñibbi dafa am loo xam ne dafa rafetul. fii nit ñi